wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi murid yi eh, ñiy seetaan fu ñu mën a nekk ci adduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ni mooy chahru ramadanul mubarak di ñaan yàlla liñ ci jaamu yëpp suñ borom nangul nu ko te fulal nu ko ginnaaw nuyoo bi nag ak ziar bi ko gis barab bii ma taxaw ak jëmm ji di wax dees na ko miin ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacké kon tey fii ñu ngi fii ci janatul mahwa ci kër Serigne Mourtada mu Cheikh Salih di imaamu janatul mahwa euh, bu ngeen gisee euh, taxawaay bi ak jataay bi li ko waral ak mbooloo mi magam ju baax ji Cheikh Serigne Cheikh Salih yàlla na ko fi yàlla yàggal te ko moom mi nga xam ne ba fi Serigne Saliou jóge moom la batali liggéey bi nga xam ni moom la doon liggéeyal Serigne Touba magam ju tedd jooj ju baax jooju moo jël lii nga xam ni mooy jumaay jannatul waa ji nga xam ne Cheikh Béthio Thioune doon na ko tabaxal Serigne Saliou sangam ba mu jël ko jox ko mu koy jiite maanaam nekk imam bi ginnaaw loolu nag ci weer yi ñu nekk di weeru wu tedd chehru ramadan ñu fi organiser ay waxtaan yoo xam ni dafay jëm ci wàllu diine ñu tàmbali ko ca ajuma ju njëkk ja euh, ba tey ji nga xam ne mooy ajuma ju mujj ji ajuma ju ju nekk it ñu am ñuñ ko jagleel ajuma ju ñu nekk ñu am ñuñ ko jagleel sëriñ bi yit doxe ci euh, ndigal waaye doxe ci itam ak yaatal doxe ci itam ak tasaare liggéeyub sëriñ Saliou Mbacké ba tax na mu jël ajuma ju njëkk ji jagleel ko ñi nga xam ni ñoom ñooy dongay sëriñ Saliou yi ñi nga xam ni ñoom la Serigne Saliou yar tarbiye leen loolu di lu am solo euh, beneen ba ca topp mu jagleel ko mag ñi nga xam ni ñoo dëkk sëriñ Serigne ci quartier bi tedd bii di Janatul Mahwa ginnaaw si loolu ba ca topp mu jagleel ko Serigne Saliou Thioune mi nga xam ni mooy euh, moo wuutu Cheikh Béthio ci ab liggéeyam tey jii nag ñi nga xam ne mooy ajuma ju mujj ji mu jagleel ko ñi nga xam ne ñooy ihfaadu Cheikh Salih Mbacké mooy sëti sëriñ saali yi kon moom sëriñ bi yaatal na doxe na ndigal waaye yaatal na ndax leen lu ci nekk euh, jox na ko euh, wàccuwaayam euh, jox na ko itam teg na ko itam fa ko war a teg loolu di lew am solo di ak yaatal te ñoo ñii ma tudd ñooy njabootuk Serigne Saliou Mbacké Euh, conférence yi itam mu tànn comme ni mu ko tànnee rek ni mu ko defee ci euh, yeneen yi euh, tànn koo xam ne sëriñ bee ko yar tànn koo xam ni sax ngir bëgg ak yaatal koo xam ni sax bukkul ci tarixa murit di sëriñ Maxtaar Kebe di borom xam-xam bu mag di wane ni mbirum sëriñ Saaliw mbirum sëriñ Touba amul xatal amul yaatal beneen ba ci topp mu jagleel ko Cheikh Cheikh Khalil sëriñ Khalil mi nga xam ne sëtub sëriñ Saaliw la waaye di boroom xam-xam Euh, beneen bi ci topp tamit bi bii nga xam ne mooy bu mujj bi ñu jagleel ko ki nga xam ne mooy sëñ Abdoul Ahad Sané di borom xam-xam bu mag te nekk ci yoonu murit kon da ngeen di gis ne euh, Cheikh Mouhamadou Mourtala euh, ndigal li ko magam ju baax ci jox muy Serigne Cheikh mu Serigne Saliou natt na ko bu wóor ba xam ni mate na ko ndax ki xalaat li xam na ni kii ku ko jox mbir dina ko eggale fi nga xam ni moom fa la war a egg dina ko teg fi nga xam ni foofu la ko war a teg kon Serigne. Mouhamadou Mourtada noonu la doxee ci biir koor gi organisation bi it ni ñu ko waxee euh, jumaa ji am na ay commission am na commission finance am na commission culturelle am na commission organisation am na commission distribution ak ak ak ak ak euh, hygiène yëpp am na fi ñu commission yëpp itam kenn ku nekk ñu jël la jox la li nga xam ni mooy sa cër nga doxale ko ni nga xam ni noonu la ko sëriñ bi bëggee kon bi koor gi tàmbalee ba léegi noonu la mbokk yi taalibe yi ñi nga xam ne ndakaaru mbuur kawlax fépp Louga fépp ñëpp ñëw nañu jàpp ci liggéey bi te loolu mooy li nga xam ne noonu la noonu lañ ko baaxee daan ko dox sëriñ bi ci màggal yee gàmm yi daan ko jàppale kon ñooñu itam sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax kon képp koo xam ne daal yaa ngi gis seetaan sama kaddu ci télé bu mag bi di Tawfekh Production ñoom it di leen sant bu baax ci di leen gërëm ci seen taxawaay ci kër gi ndax lu xew rek ñu taxaw jël ko wane ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ñoom ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen di leen jaajafal leen di leen jaajëfal di ñaanal suñu borom yokku leen yokku leen bu baax di ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mourtada yan bi nga xam ne moom la ko magam ju baax ji yan sëriñ Cheikh Saliou suñ borom kattanal ko ba ni mu ko bëggee rek mu defe ko ni ndax sëriñ Cheikh kat dafa waxoon ni quartier bu toll ni Jannatul Mahwa te lépp nekk ci turu sëriñ Saliou euh, sëriñ sa Cheikh Mouhamadul Mourtada yeyoon na ngir mu jiite ko kon nag euh, euh,